salaamaaleykum mbokk yi yéen ñi nekk bitim réew bëgg seetaan komba bu mag bii di dox ci diggante Tapha ak Boy Niang gaaw leen gaaw jënd seen passe PPV ci 3W point lambdiaspora point com su ko defee nga seetaan face to face mbër yi seetaan open press mbër yi seetaan lamb ji ba mu jeex tàkk prévente yi nag ñu defal leen ci 30 pour cent de réduction ba nga xamante ne bii wàññil na leen ko maanaam téeméer bu ci nekk ñu wàññil leen ci fanweeri dërëm mu am ñetti paas ya nga xamante ne bii nag mën nga koo jënd paas boobu mi ngi jar 6 virgule 99 euros paas numéro 2 mu ngi jar li nga xamante ne bii mooy 13 virgule 99 euros boobu pour ñaari nit la paas numéro 3 bi nga xam ne pour fukki nit la boobu ñu ngi la koy jaayee 79 virgule 99 euros mbokk yi bu ñu demee ba le jour ji mooy bisu làmb ji paas numéro 1 ñu ngi la koy jaayee 9 virgule 99 euros pass numéro 2 ñu ngi la koy jaayee 19 virgule 99 euros boobu pour ñaari nit la pass numéro 3 pour fukki nit la ñu ngi la koy jaayee 99 virgule 9 euros làmb jaa ngi noonu le 8 août fële ci arène nationale ak Leewtoo production gaaw leen gaaw dem jënd seen PPV yéen ñi nekk ci diaspora bi ngir mën a seetaan làmb ji ndax nee naa la ñaari mbër yi dañoo xiifante dañoo yàkkamti wante te combat la ba nga xamante ne bii tàng jër lay def demal 3w point lambdiaspora point comme ngir seetaan combat bi